mabuuthi raxmatan lilaalamin wa la alihi wa saxbihi wattaabiciina wa man tabicahum bi ixsaanin ila yowm ddin mbokk jilit yi fi teew kilifa yu màgg yi fi teew soxna yu tedd yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare waaye di leen ndokkeel ci weeru tedd yu ñu nekk di weeru koor rawatina guddi yu to guddi yu tedd yi ñu toll mooy fukki guddi yu mujj ci koor gi di leen ndokkeel tam ci bis bu tedd bi ñu nekk ci waxtu màgg wi ñu nekk muy bisu àjjuma di leen dalal ci turu markazul imaami warsh te mooy daaray imaam warsh ji ñu nekk bu ñu leen yi dalal ci turu daara ji ñi ngi leen di nuyu di leen dalal ci turu sëriñ Moxtaar Naar Lo ma ca kokki nga xam ne si moom mooy kilifa daara ji di leen nuyu itam di leen dalal ci turu alxaaji Abdullahi loo di sëriñ dagaj bu ñu leen di dalal ci turu ñaar ñooñu tam ñi ngi leen di dulal ngi leen di dalal ci turu seen jëwrin mooy a Cheikh Ibrahima Lo mi nga xam ne si moom moo leen nekkal ci jaamu yàlla gu gii moom moo leen nekkal ci bërëb bii di leen saytul gone yi ak ñi mu ci àndal ñépp mbokki jullit yi ñi ngi leen dalal tam ci turu alxaaji daam Sarr mi nga xam ne si moom mooy chef village bu Dagaj Sarr kon ñi ngi leen dalal tam ci turu waa Dagaj yépp ginnaaw loolu tey jii mbokk yi dañu fee daje ngir xew-xew bu rëy dañu fee daje ngir lu am solo ci lislaam te mooy tijji jumaa mbooloo mi tey daje bii tey li ko sabab du rekk tari alquran waaye li ko sabab dëgg moom mooy ubbi jumaa jun doon defar fii ci daara ji jumaa jooju muy jumaay daara ji nga xam ne si ñi fiy nekk ci daara ji ci ay donga ngir gën a yéwénal seenub nekkin moom moo tax ñu amal fi jumaa joo xam ne si ci lañuy ñuy mën a jullee ajjuma kon ndaje mi solo si sabab si moom mooy jumaa ji waaye waa daara ji dañoo gis ne bis bi dafa tombeek gone yi di war a bër war a dellu ca seeni kër feete ak seeni waajur feetu korite ñu ne kon nañu profité ci occasion boobu woo seeni waajur ñu fekke jumaa ji ñu doon defaral gone yi ci ubbite gi waaye tam ñu man leen a dëgtal dëgtal jullit ñi dara ci liggéey bi ñuy amal fii ci daara ji kon ñu xam ne ndaje mi dëgg-dëgg du ab tari daara ji am na ñu fi am nañu ay kaang yu baree bari oustaz Cheikhou Dem dana ci ñëw waaye dañoo profiter rek ci occasion bi dëgtal leen dara ci kaang yooyu dëgtal leen dara tam ci liggéeyu daara ji jubluwaayu daara ji ak tam fa ñu bëgg mu egg fa kon daal ñu xam ne ndaje mi moom du ab tari waaye dañ ko cee toftal rek solo si dëgg moom mooy jumaa ji ñi fi nga xam ne si moom lañ fi doon waajal te bëgg koo tijji tey kon programme bi ci tënk ginnaaw ba ñu ko tàmbalee ci ay ñaan euh, jàng fi dara ci ay aayaat ci alquranul karim lenn ci suñu kaa ngi doon ñu ko jàngal danañu ñëw ak yéen ci dara ci daara ji istuwaaru daara ji fa mu jóge fi mu toll tey ana daara ji lan la réaliser ba tey ji ñu toll waaye itam daara ji fan lañu bëgg mu egg fa ban taxawaay la war a am ci société bi ñu nekk loolu lépp incha allahu taala dana ñëw ci tomb boobu al oustaz Cheikh Omar dem bokk ci ñuy saytu gone yi fii ci daara ji di jëwriñu Cheikh Ibrahim donc moom mooy ñëw ci tomb boobu buñ ca jógee danañu leen dégtal lenn ci euh, kaa ngi ñu jàngal ñu dara ci alquranul karim bu ñu ca jógee danañ fi traité benn thème ci taxawaayub alquranul karim ci yar gone yi thème boobu al ustaaz maam Cheikh Ibrahima Lo moom moo ñu ci ñëwal buñ ca jógee itam danañu leen dégtal dara ci gone yi ñu jàngal ñu ay aayaat ci alquranul karim bu ñu ca jógee euh, parents yi danañu jox kenn mu wax ci seen tur maanaam way juru gone yi dana am ku fi jël kàddu wax wax ci seen tur buñ ca jógee itam ñu dëgtalaat leen lenn ci kaa ngi ñu jàngal ñu alquranul karim la cay topp mooy kàddu chef de village yu Dagaj muy alaaji Dam su noppeetam danañ ca toftal kàddu sëriñ Dagaj muy alxaaji Abdullahi Lo kii wax ci turam mooy doomam Mor Talla Lo buñ ca jógee dégluwaat dara ci kaañ yi buñ ca noppee tam bu Louga ni ñu ko xamee daara ji dafa nekk ci kilifteefu tam IEF Louga IEF bi nga xam ne si moom mooy saytu njàng mi rawatina njàng mu njàng mu jëm ci suuf wala boog mën nañ koo tudde njàng mu euh, suufe mi hmm? njàng mu lalu mi donc IEF boobu nga xam ne si moom mooy coiffé loolu moom mooy saytu mbir moomu kooku tam IEF boobu itam day jàppalante ak daara ji bu baax a baax dara umb ko ci daara ji li ñu fiy def di ci dimbalante ak ñoom moom tam dana fi jël dana fi jël kàddu bu ñu ca jógee itam dégtu dégluwaat lenn ci kaa yi bu ñu ca noppee jox tam ki fi teewal euh, sëriñ ba sëriñ muxtaar naarloo kokki te mooy sëriñ fàlluloo mi fi ñëw léegi ànd ak délégation bu mag a mag jóge ba kokki ñu xam ne yëf yi seen yëf la dara génnu leen ci moom tam incha allah taala dana fi jël kàddu bu ñu ca noppee dégluwaat dara ci kaañ yi bu ñu ca noppee tam am na fi ay lijaasa yoo xam ne si danañ ko jébbal kaañ yi ngir wane euh, wattu gu ñu wàccu wattu alquranul karim ca anam ba mu gën a rafete bu ñu ca jógee tam dégluwaat lenn ci kaañ yi bu ñu ca noppee tam danañ fi def benn am na fi gone yi niñ leen yi waajale ci alquranul karim ak ci diine na ko noonu tam dañ leen di waajal ci wàllu tàggat seen yaram ci karaté kon danañu fi ñëw tam wan ñu ci dara ndax loolu tam euh, ni ngeen ko xamee ci liggéey bi la bokk kon danañu fi ñëw tam wan ñu dara ci loolu bu ñu ca jugee tam euh, danañ jox Cheikh Ibrahim kàddu gi muy kàdduy sant ay kàdduy ngërëm yu mu jëmale ci mbooloo mu tedd mii fi teew kon mbokk yi ci tënk programme bi nii lay tëdde bu neexee yàlla bala ñooy tàmbali rek may wax ne mbooloo mii ku nekk ci ñun na yëg nde mbooloo mu barkeel la ni ko sëriñ Fallou doon waxe léegi mbooloo mii mbooloo mu yaakaaru la ndax man ca suba ba léegi damay seetlu ñi fi teew ñépp ma gis ne génnu ñeent ñeent ñi nga xam ne si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama day wax ne kenn ci ñoom ci ñeent ñii foo fekk seenu mbooloo taataanal te xam ne loolam mbooloom xéewal la mbooleem mbooloom barkeel la la ca njëkk mooy kun aaliman mbooloo mi bu ma seetloo li fi nekk ci ay waroom xam-xam kenn xamul nu mu toll waaye mu ne aw mutaalliman waaye tam nee na walla nga sax ngay nekk kuy xamlu kuy jàng donga yaa ngi nii kaang yaa ngi nii alquranul karim rek ak diina moom moo nekk ci seeni dënd waaye mu ne aw mustamian am na koo xamante si moom de dafay ñëw dégg ne lii dañ fee baasal alquranul karim mu jaar fi di déglu alquran waaye mu ne aw muhibban waaye nee na bokkul ci ñooñu ñépp nee na amoo fi donga doo boroom xam-xam waaye yow danga bëgg diine da bëgg bëgg alquranul karim gis naa fi ci mbooloo mi ñu bokk ci ñooñu kon yaakaar naa ne ñu wax ne kenn wala boog benn catégorie ci ñeent ñooñu rek foo leen fekkoon xamal ni mbooloo mu yaakaaroo ngoog rawatina nag mbooloo moo xam ne sii dafa dajale ñeent ñooñ ñëpp kon loolu nañu ko yëg bu baax a baax di ñaan suñ boroom subhaanahu wa taala mu boole mbooloo mii jotaay bii ca jotaay yamu gërëm boole ko ca jotaay ya muy puukare woo ca almalaul ala innahu waliyu dalika walqaadiru alayh kon mbokk yi ñu tàmbali rek dégluwaat lenn ci suñu kaañ yi ulaika anha mubadun laa yasma'una xasiisaha wa hum fi أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نطوي السماء كطي السجل للكتاب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 mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen di ziyaara ci weeru koor wetet wi ñu nekk ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yàlla nañu nangul sunu koor nangul ñu suñuy taxawaay nangul ñu suñuy jëf yu baax yépp di leen dalal jàmm fii ci markaz al imam wars ci ndigalal Cheikh Mokhtar Naar Lo njiital daaray Koki ak ci kilifteefam ak ci turu Serigne Alhaaji Abdullahi Lo Serigne Dagaj ak mboolem ñi nga xam ne ñooy délégation yi teew si cañ man cee jiital IEF bi nga xam ne moo ko waafee bërëb bi ca am ci liggéey bi taxawaay bu ràññiku bu rafet boo xam ne ñi ngi koy def ak mbooleem ñañ fa bokkal nekk waaye di nuyu tamit inspecteur yàgg mi nga xam ne bi ñuy door a commencé booba ñu nag moom la woon yàlla def mu dem retraite tamit gis liggéey bi ak ni muy doxee daldi jël ak njabootam indi ci bërëb bi ban fii may waxe yéen ak njabootam ñi ngi fi di jàng gannaaw loolu ci turu sunu waayjur Cheikh Ibrahima Lo laa leen di jottali lenn ci bërëb bii ñu nekk markas bi ñi ngi tàmbali liggéey bi ci anam gi mu nekkee ci octobre 2015 octobre 2015 biñ tàmbalee daara ji rek moo commencé woon di fonctionner boobu école bi commencé gul am nañ fi at ñu door a dugg ci école bi waaye ba ñuy tàmbali it li ñuy wax tàmbali bu ne day sew ñaari nit ñetti nit ba juróomi nit daanaka ci lañ nekk ci diir bu yàgg lool sunu way jur wi nga xam ne mooy sëriñ Touba ñuy ñaan yàlla suñ boroom yokk aw fanam te may ko wér bu baax te yàggal ko ci suñ kanam moo njëkk a indi tuut tànk ci bërëb bi ca itam yaakaar nañ barke ndax ron garab ga ma fekkoon keroog ba muy ñëw tey fa la jumaa jee taxaw bon ñu ngi koy ñaanal ak wér di ko ñaanal njaboot gi di ko ñaanal ñépp Euh, bi ñu defee noonu ñu def at ci lañu ñu door a xalaat ne njàng mi nañ ci boole école bi gannaaw buñ ci amee ndigalal sunu sëriñ Cheikh Makhtar Naar loo ndax umpalewu leen ne wayjur yu bari dañuy jàmbat ne buñ sañoon seen doom dana jàng alquran waaye dana ca booleel leneen jàng arab jàng français boole ci xam àdduna ndax jamono da leen di gaaw a soxla ba loolu amee mu am xalaatum ne bon ndagam fee moom la fay cosaan mooy nit day jàng alquran ba mokkal doora dugg ca école ba tàmbalee jàng xam-xam ak la ca aju ci fànn yépp mu ne loolu nga xam ne am na ñu koy sàkku ca ci njaboot gi lañ bokk nañ leen ko amalal ci bërëb bii bon moo waral bi ñu demee ba 2016 ñu ubbi école bi ñu jàppale ñu ci lool nag inspecteur jàpp ci lool affecté fii ay maître yoo xam ne ñi ngi ñi ñi ngi ci arabe bi ñii ñi ngi ci français bi ba fii may wax ak yéen classe ga nga xam ne ci lañ tàmbalee woon ñoom ñi ngi ci CM1 ca ci ndimbalal suñu boroom kalaas googa élèves ya fa nekk yépp wattu nañ téeréb suñu borom bi subhaanahu wa taala loolu ma leeralaa ci ne li nga xam ne moom la sëñ biir rëdd mooy ne juróom benn at yi élève bi di def ca école publique ngir mën a am entrée en sixième ñun de ci ndimbalal suñu borom bëgg nañ juróom benn at yooyu bu ko fi gone gi defee diplôme ba muy am ca école publique ba dana ko am fii en arabe en français boole ci mu mokkal alquranul karim ci six yi xëy na nag mënees naa njort ne loolu lu diis la mënees naa njort ne xëy na jafe na du mën a mënul nekk waaye jafe na waaye ci anam giñ ko tërale ñi ngi gis ay résultats yuy wane ne ñi fi def quatre ans ñeenti at ca amaguñ sax juróom mokkal nañ alquranul karim ca ñeneen ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom it di ñëw ñii wàcc nañ bay toppaat ñi ci desit jege na ñoo wàcc loolu bon di wane ne ci ndimbalal suñ boroom loolu expérience la boo xam ne nii dañu ko bëgg jëmbët euh, jëmbat wane modèle boo xam ne nii xëy na mii nuñ ko woon ñuy ñaan ñëpp itam jàpp ci ca ñaanal ñu ci ñaanal ci sëriñ bi mu ma yàlla may ñu ci ndam waaye ñu ngi ci rafetagum njortu ci résultat yi ñu amagum bon loolu mooy li aju ci école bi waaye école bi alquran ji mooy baas bi alquran ji nag nii la tëdde bu ñu yeewoo fajar ci waxtu woo xam ne nii du teel dañuy nodd ba noppi ndax ay tuut tànk lañ yor ñu jóg buñ jógee diggante boobu danañ fi jàng ba bët set sept heures fekk xale bi raxas yi mu waroon a jàng ci fajar gi muy ay muraaja am tari na ko waaye danañ fexe itam bind bu bees bi mu war a jël ci journée bi mu jël ko bala moo wàcc benn da koy tari ca guddi ga mu jiitu wala ci fajar gi moom bala moo wàcc dana ko tari bu ko defee bu settéeree ñépp dañuy dem sangu ji changer seeni yére ndekki waaj bu huit jotee élève bi selon seen emploi de temps ki war a dem alquran dem ca sëriñ daara ba jàngi ki nga xam ne nii daa war a dem ca école ba dem ca maître ba jàngi léegi ka dem ca école ba jàngi man nga ne waaw bon moom xëy na ca école ba lim waroon a tari ngoon bu dikkee nan la koy def ak kii des fii tamit lan mooy programme am ci wàllu école ba léegi sëriñ daara bi day fexe ba xele bii mu yore ci suba gi balaa mi dee jot lam waroon a tari ca ngoon ga dañ koy indi ci suba gi ci la koy tari bu ngoonee 15 heures bu jotee moom mi nekkoon ci daara ji ci suba gi mooy dem ca école ba jàngi ñi nga xam ne ñoo xëyoon ca école ba ñoom ba ñuy xëy seen programme bi ci suba defoon nañ lépp dara tardé wu ci buñ dikkee seen programme bi ñu waroon a def ci ngoon gi lañ fiy fekk sëriñ daara bi ànd ceeg ñoom loolu nag moo tax ñi ngi jégalu ñu baree bari ci ne war nañoo yokk li ñuy jël nombre bi war nañ koo yokk ndax ñi ngi taxaw di xaar waaye lu mel noonu dafa laaj organisation bu mag sax moo tax ba sëriñ daara bi dañuy fexe ba li muy yor ci ay dongo du ëpp quinze fukk ak juróom du ko ëpp ndax ñooñu dana tax mu mën leen a maîtriser kenn ku nekk sa programme mu mën koo topp bu ko defee man mii tamit. dama ànd ak ñoom ci liggéey boobu kenn ku ne ci ñoom dañ koy contrôler jour par jour bu élève bi xëyee ba wàcc danañ xool bi mu xëyee suba ba midi ana lan la def bu ngoonee buñ wàccee tamit ñu xool élève bi ana lan la defaat ci wàllu alquranul karim loolu moo ñuy may buñ demee ba fin du mois ñu xam xele bi est-ce que avancé na ci mois bii wala avancé wul est-ce que fi mu nekkoon mi ngi dox ay jéego wala doxul ci jéego bu amee benn jafeñ jafeñ ñu woo sëriñ daara bi waxtaan ak moom conseiller ko teg ko ci yoon woo xam ne nii bu ca jaaree xele bi njàng ma mën naa wér te mën naa gaaw loolu ñoom ñëpp kenn ku ne ak sa registre bi nga yore boo xëyee la ngay liggéey nga di ko ca ba ah, bu dikkee tamit école bi day continuer waat mu bañ a am benn jafe-jafe bokk na ci programme bi nag xele yi ak bennoo ak bëggante ci seen biir sëñ bi ne nañu jéem a fexe ba ñu am uniforme ndax li muy simple ci bët lépp am na lu muy def ci xol am na lu muy def ci jikko am na lu muy def ci kii dana tax xele bi xajoo nangoo bokk yéena jàmm kam dëkkal mu ne bon nañ jéema def uniforme loolu jéego yu mag lañ ci la ci def euh, ndax suñu am nañ tailleur boo xam ne mooy liggéeyal gone yi ñu koy wax euh, Talla Dieng Talla Talla ñëwal wane lenn ci ndax tey jii dañoo waroon a sol seeni euh, costume yi ñu yi ñu yor di ko jàngee moom la ñu waroon a sol waaye ajjuma ji ak xataa yi waxtu wi moo tax ñu bàyyi leen ñu sol li nga xam ne bu noppee rek danañu mën a dem ca jàkk ja waaye moom na wane li nga xam ne noonu la koy ñawe ak yi nga xam ne moom la gone yi di sol ndax ñeenti couleur la yoo xam ne nii bu ci ne bokkut ak moroomam sàmmonte nañ ci itam jamono tàngaay bi ak sedd bi ñu ko ci sóoraale bu baax a baax bu ko defee jamono bu ne gone gi day sol ba méngook loola waaw wanal wanal mbooloo mi waaw ñaw bi it li tax ñu ñaw ko ba mu gudd fexe ba lislaam li mu digle ci yar surtout ci wàllu col gu jot fexe ba xele bi teel a am jom nangoo col col gu jot col gu yiw gu sell moo tax ñu defee ko anam gii ca yitam du du du tàng ci gone gi ca yitam bu ñu demee jamono seddit mën naa sol boo xam ne nii dana ko dana ko ci dimbali yii nag lii kenn rek moo ko moom kenn ku ne am na ci ñeent yoo xam ne moom lay awantoo bu mu sol ñaari fan mu tilim ñu yóbbu ca póot ma foofu maa ngi fiy profité di sant yaayu daara euh, soxna may Maymuna Gueye ak maam Saasum soxna Ndey Mbooj ñoom ñii nga xam ne ñu dëkkoog daara ji nekk gone yi di leen jàmbale ci fànn yëpp ci fànn yëpp taxawu liggéey bu baax a baax a baax ak ci njiital ajaratu soxna Safiyatu Loo ak ñim àndal ci waa kër gi ñëpp taxawaay biñ ci jàpp jàpp ci gone yi nekk ci waañ wi nekk ci póot mi nekk ci lépp bon yéen jur yi ñu ngi leen di xamal ak yenn yaay yeeg baay yeeg ñëpp ne daa am ay yaay yoo xam ne ñoo leen wuutu fii ci liggéey bi moo tax boo dikkee nga gis fii koo xam ne ni danga naan nu muy defaree boppam am na fi ñu tuut ñoo xam ne danga naan kii nu muy defaree boppam daa am ñoo xam ne ñoo futteeku bàyyi seen lépp bàyyi seen yitte yëpp fii te daara ji fii nekk ci gone yi ci póot mi ci cet gi ci waañ wa ci lépp wàllu waañ wa nag danaa ci taxaw tuuti ndax sëñ bi wàllu nekkiinu gone yi li ma la waxoon léegi moom daf ne ki ne ci la gën na mel na gën loolu mooy jikko ji yar bi na nekk fa gën nekk fa gën gi bu ngeen yéegee ci kaw mooy doortuwaar yi fa la gone yi di nelawee seeni lal lépp ma nga fa bu ngeen demee ca kaw ak nam ko waajale ak nam ko liggéeyee dangeen gis ne bon lim wax ne daa war a nekk fa gën moom waajal na ko waaye nag ñu xam ne bërëb bi waajur wi li muy def ci doomam moom sëñ bi li muy def ci doomu ci gone yi moo ko ëpp fuuf fuuf fuuf fuuf daraam fekkewut bërëb bi daraam fekkewut liggéeyu bërëb bi loolu ñu ngi koy seedeel ñépp bërëb bi nag nii mu mel ay nit ñu baax ñu yàlla baaxal ca ñu bëgg lu baax ñoo futteeku taxaw lu mu sumb mu ànd ñu ànd koog moom muy ci waay jur yi ak ñoo xam ne sax duñ ay wayjur waaye du loo xam ne nii wayjur yi moo koy joxe muy dugg ci bërëb bi moo tax bërëb bi mel nii mu mel ca yaakaar naa ne jur yi ñoom ci seen bopp sax xam nañ ko léeg-léeg buñ dikkee dama waaw yéen li ñuy joxeel gone gi nu ci gone gi mën a dunde mën a leen kat boroom dane bu ma noon da koy def ngir yàlla waaye liggéey bu mel nii pour mu organiser wu jaar yoon faw ñu teg ko ci ay conditions yoo xam ne nii dana tax ñu xam ne bërëb bi daa war a organiser wu loolu moo waral jur waajur li muy participer mu di ko participer waaye moom la doon sañ-sañam doon bëgg-bëggam mooy gone yëpp jàng gratuit ñëpp jàng ngir yàlla ndax kat loolu la Cheikh Ahmad Sakhir Lo digle woon ca moom loola ca la nekk donte ne woon na nag man de dama sañ ta fayeeku de sañuma ko awuma ci ndigal waaye nag weddiwuma contre ma ki nga xam ne nii ma ngay jàngale di ca fayeeku ndax danañ dox ba jamono laaj loola bon ñu ngi nuyuwaat ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu itam ànd gi ngeen ànd ak ñun ci liggéey bi ndax yéen it yéen a ñuy comprendre ci lépp réeroo leen ak ñun ci lenn ci gone yi ñu ngi leen di sant ci loolu di leen ci gërëm bokk na nag ci mébéti bërëb bi ñu bari ci way jur yi ñi ngi sàkku ne dañoo war a amal daaray jigéen ñi fi ne ñoo ñu ngi koy sàkku ca loolu àgg na ci sëñ bi waaye dafa tolloog ne naalam la mébétam la bëgg-bëggam la ca mi ngi dox jëm ca waaye dafa am ay daaray jigéen yu ñu gisoon yoo xam ne nii léegi seeni borom dañ leen a tëj gis nañ ñoo xam ne ñu ngi yor ay daaray jigéen waaye nekk ci ay jafañ-jafañ nekk ci ay tolof-tolof di ko dund ak ak gone yi ñun ñu ne ndegam loolu am na ca teg nañ ci bët bala ñoo ubbi daaray jigéen nañu wàcc ci terrain bi daara yi nga xam ne dañoo yor ay jigéen seeni jafañ-jafañ ñun nañ ko jàngat ba wuutal ko ay solution ba noppi ña nga xam ne dañoo tëjoo nit ca yorooni daaray jigéen jafe-jafe ja taxoon ñu tëjit loola nañ ko xam jàngat ko ba nga xam ne wóor nañu ne ñun buñ ci duggee ci ndimbalal seen borom pakk yooya mën nañ caa mucc bu ko defee ñu door a ubbi ay jigéen bon étude boobu ñu ngi ci di ci jox di ci jëm du ko yëgal parents yépp waaye nag loolu tamit ci nim ko bëggee mooy ne buñ koy tàmbali tamit phase de test la ñuy def bu ñu noppee ci études yi ba jublu ci il faut ñu def phase de test ñi ñuy jël nombre bu yem lay doon études yi ñu defoon ak li ñu bëggoon a pratiquer ci ñoom ak jafe-jafe yi ñee amoon ñu indi li ñu indi ni ay solution ànd ak ñoom ca loola buñ ca réussir doola yokk suñuy jéego doxal suñuy waaxu jëm ci kanam loolu bon benn la ci naal yi ak mébét yi bokk na ci naal yi ak mébét yi école bi fi mu nekk nii ci marxalal ibtidaaiya la nekk ci primaire lay yemagum waaye mébét na gone yii bis buñ demee ba am seeni certificat tamit ñu gunge leen ndax teg nañ leen ci yoon woo xam ne nii ñu gunge leen ñu dem ca kanam moo gën a yomb ñu xoñ ci leen ñu dem ca feneen foo xam ne nii programme bi ñu yoroon fii mën nañoo am beneen programme bu wuuteeg loolu. loolu itam ñi cey xamal waaye jur yi ne kat bëgg ca mu gënal ñu mooy gone gi bu mokkalee it nga bañ a jël yóbbu ndax boo ko defee yàqal nga ko am na programme boo xam ne mi ngi ci. di yu war a jëm juróom-benni at mu dafa gum ci ñetti at jàpp ñeenti at nga yóbbu ko la weesu jàqu na bon ñi ngi leen di ñaanal gone yi ngeen di leen mu ñël ca xam ne tamit njàngum xam-xam njàngum majalis it installé nañ ko ci bërëb bi ñi ngi ca école ba ñi ngi ci alquran ji di defaraat seen alquran waaye ñi ngi leen di tëralal ay téere nag yoo xam ne bokkul ci programme bi ngir ñu xam seen diine tàmbalee ko ci laxdari yu asmaawi risaala muqaddima ba ca téere yëpp noonu ñu ko defee ci wàllu fiq bi noonu tamit lañ ko war defee ci wàllu luxal arabiya bon bokk na ci naal yi sëñ bi itam ñu am bërëb boo xam ne nii gone yi dañ fay tàggate seen yaram ndax gone yi ñu ngi def éducation physique biñ ko tàmbalee euh, sëñ Baye Fallou ñëw na fi sax bis fekk gone yi nekk ci bal bi ñee di football ñee di daw fee mu ne ma eh Cheikhou gone yi ñu ngi nii taluñ ñu sax nekk ci bal bi di football ak def leneen lii daal wut leen jéem a lu ne wut meneen pexe te ndegam nag ñun ay jëwrin lañ di wéyee ndigal ñu ne bon nañ jéem a fexe éducation physique bi ci anam gi ñu koy defee ci école publique bi nañ leen ko defal karaté sëñ bi rafetlu ko ñu wutal leen maître boo xam ne moo leen di defal karaté. du ñàkk ci biir jataay bi danañ leen wan lenn ci gone yi euh, fiñ ci toll ak niñ koy defee ak seen maître ngeen gis teg seen bët bon loolu it ñu ngi ciy sant sëñ bi te di ko xamal na ñun ñu ngi ci gannaawam lépp loo xam ne nii gis na ko wala mu nemmeeku ko ci liggéey bi loo xam ne nii ba sañoon ñu joyante ko loola ndigalam lañ cay déglu te lum ña ca waxit bu soob yàlla loola la ñuy def ndax ci ndigalam lañ fi nekkee bërëb yi it bërëbam la ndax fii ak daaray ko kii benn la du ñaar di delluwaat di sant di gërëm inspecteur délégation bi nga xam ne nii yebal na leen fi ñu ngi nii toog yàgg fi lool teel la ñëw ca moom ci boppamkat kat nee na sax daa am ngànt lu ko téye ba munta ñëw waaye bu sañoon mooy dikk mooy teewal boppam bon ñu ngi dellu di sant di gërëm waajur yi di sant ndongo yi ci seen taxawaay te di fàttali ne fii ñu toll ren am nañ ñaar fukk ak ñett ñoo xam ne nii wattoo nañ ci bërëb bii alquranul karim ñaar fukk ak ñett yi kenn moo fi dalewul baax ñi ci des ñépp fii lañ dale baa siin miim ci diir biñ ko sosee ak nëga ni ñaar fukk ak ñett tari nañ fi alquranul karim am na ci ñi nga xam ne ñoo mujj tari démb lañu ñibbisi si jóge kokki tari ji woon waaw bon loolu ñu itam ñi ngi koy xamal waaye jur yi di leen ko yëgal bu baax a baax lii daal moom lenn la ci li nga xam ne nii euh, bërëb bi mi ngi dox mi ngi koy amal mébét yi tamit bari na lool waaye ñu di leen xamal na nag su bàq bu tooy xëpp daal mi ngi nii moom bàq bu tooy xëpp mi ngi nii ci lu fi waaye sax jiwit dana sax ci ndimbalal seen boroom bon nag ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp di ci woo ñëpp képp koo xam ne nii bëgg naa jàpp ci liggéey bi ak ci anam goo ci bëgg a jàppee ubbil nañ la bunt yi tàllal nañ la suñ loxo ñu ngi leen ciy woo bon sëñ bi bis ni tey incha allah bu buñ jullee jumaa ba noppi joxe na bëru gone yi mu tàmbali bisub tey jii nekk la set mai ba dimanche le 23 dimanche le 23 mai gone gu xëy suba ndékki ba noppi nañ ko daal di indi ngant nag munta ñàkk waaye bëgg nañ ci ñëpp dimbaluñ ci teewaay gi ndax dañoo yor programme boo xam ne nii ci lañuy dox di ca jëm ci li ñu diglante ak yéen ci ndimbalal suñu boroom ñun bëgguñ cee wàcc lenn liñ leen di wax ngeen koy dégg loolu moo fi ne moom la ñuy jëfee moo tax ñu bëgg ngeen dimbali ñu lillaay wa rasulihi gone yi tamit bu boobaa nañu teel a dibbisiwaat ndax école bi tëjagul ñu ngi ci digg année scolaire bi euh, ñu ngi nii kenn ku nekk mi ngi ak bulletin am premier semestre bi noppi na bulletin yi joxe nañ ko mën naa xool bulletin doomam xool aw doxinam comparé ko ak daaw fa mu tolloon lum ci am ni kii ay revendication bu dikkee tamit loola ñun dañ koy jël ndax liñ leen di wax toujours mooy gën a gi bu dikkee dee ko natt dee ko xool comportement ba loo ca gis boo ñëwee teel ñu ko signalé ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ki ma yónni moom lu mat la ma waxoon waaye ñun ñoo matadi matadi doomu aadama xëy na moo tax la ma waxoon lu ci baree bari mataluma ko waaye moom lam ma joxoon mat na li ma digaloon it mat na ñu di ko ñaanal it di sàkku ci mbooloo mi ñëpp it nañ ko ñaanal sunu jur Cheikh Ibrahima loo yal na ko fi yàlla yàggal yal na ko yàlla bàyyi ci suñu kanam li mu naal mébét ko bëgg ko lépp yal na ko mottali ci sagoom ak bëgg ci na ko mottali ci sagoom ak teeyu bakkanam ndax moom kat alali àdduna bu ko doon wut kenn du fi ñëw fekk bërëb bi mel nii bu doon wut alali àdduna kenn du fi ñëw bërëb bi mel nii mu mel bërëb bi nii mu mel du wayjur wayjur yi li ñuy joxe ca waañ la jëm ca waañ wa sax miñ ciy def loo xam ne nii dama ne boo ko comparé woon ak la wayjur way joxe danga naan waaye nag lépp nañ dañ koy delloo ci ne moom daa bëgg lépp doon ngir yàlla bon na ko ñëpp ñaanal yiw ñaanal ko yàlla seen borom nangul ko jëfam waaw innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yal na ko yàlla nangulul jëfam yal na ko yàlla nangul Cheikh Ahmad Sakhir Lo fa mu tëdd yal na ko yàlla defal njëggal yal na ko yàlla defal yërmande lam daan ñaan ca bëggoon ko daan ko sàkku ci ñëpp mooy ridwaanullahil akbar yal na ko yàlla defal wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah jazakumullahu xayran أصحاب النار هم فيها خالدون حسبك ما شاء الله بارك الله فيك طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين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 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم قبله الرسل وأمه صديقة macha allah barakallahu fiik jërëjëf yal na yàlla def barkeb alquran topp la Yes, I don't رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar di jéggul nag ci wax lu ñu jël kàddu ndax mel na ni ci weneen waxtu lañ ko programme woon waaye dafa fekk dafa am lu ñuy xaar loo xam ne mënut a xaar jumaa bi ñu war a intervenir a moo tax ñu di war a ñoo dem ñu jot li kàddu yi inspecteur ndax moom moo ñu fi yebal inspecteur Serigne Bamba Seck moom moo bëggoon a ñëwal boppam bëggoon naa ñëw lool waaye nag dafa am ngant moo tax au dernier moment mun ma mën a Bamba Seck ma ne nga xam mooy yor lu jëm ci affaire examen professionnel ci ko kon ñu am lool ak bànneex ci teew ci jataay bu mel nii jataay alxuraan jataay boo xam ni jàpp nañ ni ci jataay yi gën la bokk ndax lañ fay wax di alxuraan alxuraan loolu nga xam ni mooy gën di kàddu ndax muy kàddu sunu borom waaye jataay bi ne nit jataay boo xam ne ko def ci gën bis bi gën ci bis di bis àjjuma dajee mooy koor kon loolu yëpp di ay gëneel yoo xam ne dañoo daje ci bisu tey bi kon jël fi kàddu lu ñu neex lool alxuraan nag di ngeen ko xamee moom suñu borom moo ko téye boppam inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun kon lii lépp dañu ko ci biir ndax yàlla garanti loolu moo koy gàdde boppam ba tey mënu ko lu mu yàgg yàgg lu mu jóg kon mu war a daal di yëpp day dugg ci biir ñi ko xam ne lislaam wet bu nekk di ko koy attaqué jafe-jafe yu nekk di nga koy dugal jullit lu nekk pexe yu nekk di nga koy def waaye nag wallaahu mutimmu nuurahu walaw kariha al-kaafiruun luy sonal sonal jullit yi luñ leen fexee fexee booba la booba sax la sunu borom di gën a tasaare diine la julli seen affaire di gën a baax kon bu fekkee jotaay bu ñuy waxee ci biir yooyu danañu neex lool. boole bi ñu ci teewal nga xam ne mooy inspecteur Bamba Seck nga xam ne moom mooy yor li ñuy tuddee taalim assasin maanaam njàng mu suufe di commencé ci xale yi gën a tuuti ba ñi àgg troisième moo koy saytu ak waa inspection kon lii ku ko def moom nga ko defal waaye ku ko def ñun ñëpp nga ko defal ndax ñun la waroon kon lépp loo xam ne inspection mën ko ci mu dana ko def su ko mënul dana ko jéem waaye daal nee nañ na xam ni na parents yi xam ni na kilifa yi nekk yu xam ni saa yu ngeen ko soxla amul guddi amul bëccëg moom disponible na équipe bi muy di demee disponible na ngeen jàpp ci jàngale bi rawatina jàngale alxuraan nga xam ne dañuy ñaan suñu borom mu boole ña nga xam ne bis bu alxuraan di ram ña nga xam ne ñoo ko doon jàng mu boole ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne alxuraan ak koor dañuy am mu ñeent ak ñoom maanaam ñi woor bu amoon xeemee woo dana taxaw ne sunu borom kii de maa ko tere woon def lu neex lekk ak naan sax bàyyi ay bëgg-bëggam kon nag ni mu tibb ci moom alxuraan ne kii de maa ko tere woon nelaw nag moo tibb ci moom kon bis booba yàlla nañ bokk ci ña nga xam ni alxuraan daf ñuy tinul koor it daf ñuy tinul kon kàddu yooyu daf ñu war naa ko jottali engagement maanaam yéeneem ak disponibilité am ñun ñëpp ak équipe bi muy liggéeyee di leen xamal ne lépp yu leen ko soxlaa moom disponible na kon ñu ngi fàttaliwaat nuyoo suñu kilifa yi nekk fii di leen di yóbbu yóbbu islam ba gën a tedd wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf macha allah. inspecteur. auzu billahi mina shaytaani rajiim. NBA. jullit yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam maa ngi leen di baalu àq di leen baalu àq man nag xam nga sama kàddu da judul bari damay da waxtaan loo xam ne rek pour mbirum parent d'élève bi bu ko defee dama ba bëggoon ñu taxawal benn mbootaay goo xam ne ne pour parent d'élève bi bu dee ci wàllu góor ñi tamit ñu wut seen mbootaay bu dee ci wàllu jigéen ñi tamit ñu wut seen mbootaay pour bu ko defee ñuy man di xam jafe-jafe daara ji di jàppale daara ji di nemmiku daara ji fu mu toll bu ko defee yëf yi jëm kanam parce que ñii fi nekk nii nga xam ne ñoo nekk ci daara ji xam na lott nañ ci faw ñu wut ñoo xam ne dañ leen ciy jàppale ci anam bu ne parce xale yu ndaw yi xam nga képp koo xam ne yaa ngi xale sa biir kër rek xam nga sax la ngay jànkonteeg xale ya asuma laa na nga dajalay xale yi nit ñi indi leen fii moo tax daal ñu ngi doon sàkku bu jataay bi jàllee diggante bi nga xam ne ne moom la xale yi di dem di defaru seeni bagage pour kefin buñ fi mënee daje daje bu gàtt boo xam ne daal ak njëlbeen lay doon bu jàllee nag ñu gën koo yaatal parce que xam nga kom ñëpp am na ñoo xam ne ñu bari fekkewuñ ko bu ko defee ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu yóbbaale ko bu ko defee waxaale ko way jur yi ak képp nag nag maanaam xaajiluñ ci kenn képp koo xam ne ne am nga fi xale ak koo xam ne ne amoo fi parce que lépp luñ ciy def rek dañ koy def rek te yàlla tax moo tax daal lu ci waay mën a jàpp nga jàppale ko daara ji loolu daal laa xam ne moom laa amoon ci lu may wax bu ko defee bu nu ba noppi tasante xale yi di defaru lu ñu ci mën a dajaloowaat da ci diggante bi comme occasion la ñu dajaloowaat ci waxtaan ci buñ demee bu ko defee ku ne ñu am say numéro téléphone bu ko defee ñu joxe numéro boo xam ne fii ci daara ji lay doon lu ci waay di man di jàpp tamit boo wootee ci numéro bi boo fi fekkee oustaz Cheikh Dem ak ku mën a doon tamit ñu jàpp ci parce que lii tamit xam nga ak njëlbeen la man noonoo dem ba mu xam ne ni tamit day def ñu ëpp loxo bu ko defee ñëpp ñu jàpp ci gën koo yaatal parce que diñu ñaan ci daara ji mooy daara ji dem a dem a dem ba nga xam ne daf ñuy ëpp suñuy loxo ba nga xam ne dañuy wut ñeneen ñu ci ndimbal loolu daal la ñaan yàlla yàlla na sama borom def jàmm sama nijaay nag moom Ibra Jaxate ak nijaay Ablaay maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm nijaay Ibra nag surtout nijaay Ibra man moom wax dëgg yàlla ba mu tàmbalee daara ji ba tey maa ngi ñëw ci wetam lu mu bëgg fu ma mën a nekk fu ma mën a nekk lu mu bëgg man maa ngi ci wetam ci ndigalam lay dox moo sama nijaay Ablaay mi nga xam ne bu nekkee ci dakaar lu xew ci dëkk bi funta la mu naan ma demal seeti ñooña wala demal fii bërëb sàngam loolu lépp daal maa ngi leen ciy sant di gërëm loolu daal laa xam na ne moom laa amoon ci lu may wax xam naa ne bu jullee ba noppi daal li ci des ñu eggale ko daal incha allah jërëjëf jëfa jërëjëf maama macha allah kàddu yi kon leer na asalaamaaleykum mbokku jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen gërëm di leen sant alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin dara loo place bii dara dara dara jóg alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ku yeewoon mag ña tey jii dañuy kontaan lool lool lool lool lool alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi waaleykum yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV la chaîne au service du Saint Coran.